ñu ngi am mbégte dalal sa Zator Mbaye candidat Benno Bokk Yaakaar Mermoz Sacré-Cœur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou di la nuyu di nuyu sa auditeur ak internaute ki nga xam ne ñu ngi déglu ñëpp. Mm-hmm. dalal ak jàmm ci matinal bi alors ñaari fan euh, mi ngi nii ngeen ne ci campagne bi yow gulet nga nekk tête de liste ci élection lan nga jàpp comme jàngat déjà. alors li ma jàpp comme njàngat mooy ñu ngi dem di seeti population yàgg nañ ko def mais gis nañ leen euh, vraiment dem bi ñu njëkkee génn gis nañu adhésion bi population yi am. ñu ngi koy jot aussi ci internet bi ñu ngi koy jot ci ay message jàpp naa ne daal nous partons très confiants parce que nag euh, avantage bi mooy commune bi ñu nekk Benno Bokk Yaakaar moo ko yàgg gagné. je crois que euh, ki nga xam ne aussi moo fi nekk di maire bi def na fi fukki at ak ñett mais élection yi fi jàll yëpp moom musta jëlee liste yi c'est-à-dire da doon nekk ci liste yi ñeneen ñoo doon gagné après mu daal di koy jël mais bi yoon comme moom moo jiite foog naa ne gagné ko dina doon lu lu lu yomb ci ñun parce que. dama gëm ne foo toog fukki at ak ñett lu bëri defoo ko fa lu ci juróomi at ngay naan nit ñi boo leen ma falaatee dinaa jéemaat def lii parce que su je crois qu'il avait largement quand même le temps ak suffisamment de moyen lu toll ak vingt milliards foog naa ne boo ko yoree war nga mën a def lu nit ñi teg seen bët mais investissement ci commune bi bëriwu fi euh, daanaka sax amu fi bu dee wàllu gestion bonne gouvernance nit ñaa ngi koy joy bu dee wàllu accessibilité maire c'est autre chose on maire qui ne préside pas le conseil municipal un maire qui ne préside pas le bureau municipal donc loolu yëpp dafa doon ay rëq-rëq yoo xam ne foog askan wi xam ko te ñun dañ leen ko fas yéene xamal pour que enfin ñu am commune boo xam ne daal euh, bu mucc ayib lay doon. Mm-hmm. yéen Benno Bokk Yaakaar nag bi campagne bi tàmbalee dafa mel ni jafe-jafe ngeen ko dooree ndax yëf yi commencé na jaxasoo Parcelles Assainies ngeen def seen euh, meeting départemental euh, samedi gis nañu ni yëf yi mujjee lan moo fa xew. ah de ñu ngi koy ñaawlu parce que dañu ñëw meeting départemental boo xam ne dañu ci prier dañu ci invité pour ñu ñëw indi suñu contribution. ku leen invité. le département personnellement man c' le département qui m'a invité parce que je suis candidat d' une commune ñoo ma invité jox ñu aussi les moyens de locomotion donc ku gis suñu délégation xam ne xeex taxuñu jóg ndax doo xeex nag yóbbu ay jigéen te man sax sama suñuy soxnaa ngi woon ci délégation bi kon xam nga kooku xeex taxu ko jóg ba ñu ñëwee ñu xamal nañu du ngeen yéeg du ngeen dugg Euh, ak ay kàddu yu dëgër sax ba saaga jot fa jub ah ñu ne ñun du ñu ñëw ci cérémonie jàmbur di ko yàq ñu daal di départ ndànk dugg suñuy oto ñibbi. kan moo yëkkati kàddu yooyu. Ah, xanaa euh, maire euh, des Parcelles Assainies mi nga xam ne moo ko organisé. Moussa Sy waaw moom la donc te jàpp naa ne problème boobu du man kese parce que bu doon man kese xëy di dinañ ne man maa am jafe-jafe mais au delà de man gis nga également. Euh, def na ko ñeneen def na ko premier ministre Mimi Touré def ko Mbaye Ndiaye Amadou Ba Cheikh Ba je pense que loolu du yoon nekkuñu ci meeting wu wujjee ñun suñu kuñ suñuy wujj nekkuñu ci biir bennoo suñuy wujj ñu ngi ci biti il faut que loolu ñu comprendre ko xam ne véritable combat bi c' est pas un combat interne mais c' est combat externe ñun suñu biir xam nga lan mooy suñu combat fexe bëggante fexe jàppante fexe nekk benn je crois que loolu mooy fulla ji loolu mooy fayda ji pour pour que li nekk suñu kanam ñu mun ko fàqat jël ko parce que mairie bi nga xam ne bëgg nañ ko jël Dakar mu fàttali ne 2009 ak léegi mairie la boo xam ne ci loxo opposition la nekk donc dafa di yoon pour que ñun ñu mën a jóg dem jëli mairie boobu ñu jëli ko nag dañuy àndandoo nekk benn yenente jàmm jàppalante doolewante parce que bu ñu ko defulee je crois que day doon lu nga xam ne nii euh, luy jafe lay doon te jàpp naa ne àdduna bi dara waratu mën jafe ma koy lancer un rek mu xoolaat toogaayam euh, nekk ci jàmm ak nit parce que jàmm ak jàmmoo ci la lépp xaj. Hmm. foogoo ne tamit war nañ ci jël ay matukaay ndax lii bu continuer moom euh, mën ngeen am jafe-jafe ci élection yi ndax opposition bi ña ngay doxal di xool nu ñuy nu ñuy bennoowee ñoom. waaw xam nga rëq-rëq yu mel nii du ñàkk sax ci mbootaayu politique mais. bu warul di dëkk warul vraiment chaque fois fu ñu toog ñu gis la même personne ak les mêmes attitudes loolu euh, je crois que képp ku nga xam ne ñu ngi ànd depuis ay fan nag am na lu bëri loo xam ne suñu bët may nañu ko suñu nopp dëgg nañu et puis nous sommes des acteurs politiques xam nañ naka la demee suñu bëggoon yàq dañuy yàq mais loolu taxuñu jóg parce que suñu yëfi bopp duñ ko yàq mais dama jàpp ne rek bu fekkente ne ay nit dañu ànd tey objectif bi nekk benn maanaam gagné mooy suñu objectif dañu war a bëggante yenente jàmm ba pare respecté wante lépp loo xam ne ay kujje la yoo xam ne ay kujje suuf la wees nañ ko ndax président tànn na ñu muy tànn ba jiital leen président nag bu la tànnee ngay doxal dafa am comportement ak attitude boo xam ne da nga ko war am parce que moom na mu mel yow nga war a jéem mel ndax euh, ci ci ci moom nit ñi moom lañ lay xoole voilà président ñëpp xam nañ ne ku yaru la ku dal la ku tey la kenn déggagu ko ci ay saaga mais un responsable waratu mën jël micro ci stade bu fes dal di xaste di saaga loolu tam jàpp naa ne du du responsabilité. Mm-hmm. est-ce que tam Amadou Ba mi président Macky Sall tànn muy coordonnateur national mi ngi doxal coordination bi di mu waree ndax bu demee ba ñu di ko xañ kàddu ci meeting départemental bu tal ni bi amoon parcelle ça pose problème. waaw mais loolu du responsabilité parce que buñ la xañee kàddu ka la xañ kàddu kay moom moom moo am jafe-jafe. est-ce que coordination mi ngi jàll. moom coordonnateur national la président de la république élection yi waru ci dugg mënu ci dugg moom ak leader yi ñu tànn ko ne ko coordonnateur kon moom fu mu ñëw teew bëtu président lañ ko war a xoolee. looloo tax sax muy mujj wax li tax muy mujj wax mooy bëtu président lañ koy xoolee suñu président coalition. bu ñëwee fenn nag ngeen ñàkkal ko fayda ñàkkalu leen ko fayda président ngeen ñàkkal fayda ça c'est c'est parce que moom ñëwul ak kàddu boppam ñëwul ak jëmmi boppam ndax nit ki la yéenu ki la yónni jëmmam ngay teewee jëmmam ngay waxee il faut que nit ñi xam loolu te loolu nag képp kuy acteur politique te xamoo loolu matoo li nga doon hmm, matoo li nga doon coalition bi daal euh, yàgg nañ ci depuis 2012 ñu ngi ci xëy na ñiy soog a ñëw barka démb xëy na ñoo comprendre lu indi coalition bi ba fii peut-être moo tax ñuy tëb daal mais ñun ñu fi nekkoon bokk ci acteur yi ko tabax xam nañ ne coalition dafa am na mu tëddee dafa am respect parce que ñun nag euh, waaw coalition bi dañ ci ay ay duñ ci duñ ci wàll yan daal bàyyeewoo ko ñu feneen ñëw ñëw tey bëgg wane suñu bopp déedéet dañ fee nekk depuis longtemps. donc nag na nit ñi xam loolu te ñu dal daal xam ne suñuy noon nekkuñu suñu biir mais ñu ñu war a jàmbarloo ñu ngi ci biti. da nga jàpp ne conseil de discipline wala commission war na ci jël am benn taxawaay peut-être pour éviter ndax lii moom bu amaatee moom daanaka seen campagne mën na jaaree <laughs> ndax saay. non jàppuma sax ne ay conseil de discipline war na am jàpp jàppuma sax lool mais dama dama jàpp ne euh, ay activité politique la rek euh, nañ ci tirer enseignement yi ñu ci war a tiire yëpp su ko defee nit ñi comprendre xam ne euh, politique daal yar teggin wax jàmm dox jàmm daf ci am solo parce que adduna lépp loo gis rek ak fi muy jaaree lépp loo gis ak li yàlla di tudd mais jarul ay conseil de discipline man foog naa ne dafa jum te xelam dina dellu siwaat ndax moom sama xarit la mm. yàgg nañu politique bi boolewuñu kii dugg nii nga xam ne mooy sama jigéen ñun xamante nañ bu yàgg ëpp na ñaar fukki at donc am na loo xam ne tam nit daf koy seet seet loolu moo tax ma waat ginnaaw génnaat dem ndax bu doon keneen ma jaamarloo ndax nag am nañu fulla ku ñu bëgg a toroxal ñu wan la suñu bopp mais loolu taxul taxul ñu jóg. d'accord alors euh, bi yemoon na ak euh, mbas mi jugaat dimanche bi rek am nañu lu ëpp cent cas yéen coalition bu mag ngeen di yëkkati ay nit ñu bari lan ngeen jël ko matukaay ak ndax yaakaaroon ni itam mën ngeen fee jaaree yokk euh, mbas mi gën a tasaare njàngoro ji. waaw de moom doy na waar campagne bu metti la ndax campagne dafa doon moment animation moment saafonte moment nekk ensemble donc boo ci boolee mbas mi egg si yi nga xam ne da ngay takk masque da ngay daanante nekk na lu jafe ñun fi daal ñu ngi fexe ba ñëpp ñu ngi àndal di takk masque. fu ñu dem aussi danañ wax nit ñi ne leen mbas maa ngi fi encore euh, mais daal suñu arme daal mooy ñaan yàlla suñu borom rek mu sàmm ñu musal ñu ci mbas mi ba mu bañ a tëral kenn parce que lu metti la ci campagne parce que campagne moom ku ko xam-xam ne animation la xumbal la saafonte la waxtaan la nekk benn donc loolu su amulee dafay doon loo xam ne donc luy compliqué la lay doon mais ñu ngi ñaanu yàlla rek mu sàmm ñu sàmm ñëpp ba ñu def campagne ci jàmm dem ci élection yi ci jàmm ba ku nekk mën ci génn te ban ayib ban la ci topp. bu weesoo mbas mi beneen tiitaange mooy fitna tàmbali woon euh, nuyoo laata campagne bi sax di door ci yenn gox yi fu mel ni Ziguinchor yéen ci seen wàll ban taxawaay ngeen nar am ak lan ngeen di yabee seen militant yi pour que même provocation bu amee fitna bañ a jolli. ñun de jàmm ak jàmmoo ba naka saa yu ñuy dem loolu la ñuy wax nit ñi ñu xeexuñu man fu ma romb sax gis ñeneen ñu fa nekk danañ leen nuyoo politique bi du du du xeex ak xuloog jaas ak paak ak politique xel la lii laa bëgg nga ne ma man bëgguma lii lii laa bëgg ana ana xuloo beeg xeex bi yow lekkal sa suppu kànja bàyyi ma ma lekk sama bu jën mu jeex mais i faut que ñun acteurs yi aussi ñu mën a wone taxawaay boobu démb bi may tàmbali ñëpp gis nañ ne sama commune dama dem seeti ki nga xam ne moo fi opposant majeur waxtaan ak moom saafonte ak moom ñëpp gis nañ suñu waxtaan ci internet li mu wane mooy politique non amu fi place politique non amu fi place démb bi ma demee këram il bien reçu maak sama délégation xëy na sax ni mu ma recevoir ba ma demee sama meeting départemental recevoir wuñ ma noonu te moom élection bu jot day ñëw sama kër damay dem këram àdduna loolu la parce que li yëpp ay jeex mii yëpp ay mbubb la rek da nga mel ni mbubb boo sol bu tilimee nga summi koo sol beneen donc na nit ñi jàpp ne poste yi ñuy wut ak di ko xeex na nga ko fekkee benn ñaareel bi du pour yow donnoo ko moomoo ko jëndoo ko dañ la ko dénk c'est pour un temps déterminé kon war nañ ci mën a rafet war ci mën a waxante jàmm defante ci jàmm ndax fii koo fi gaañ koy seeti ñun ñëpp si communes yi la ñu dëkk koo fi bu amee xeex ci biir commune yi doomu commune mooy gaañu te man nag maa ngi ñaan yàlla suñu borom campagne bi may dugg ànd samay nit mu bañ a am benn xeex mu bañ a am benn xuloo loolu laay ñaan ndax ay doomi jàmbur ñoo ñëw ànd man ay jabari jàmbur ay jëkkëri jàmbur donc wax maa ngi ñaan yàlla suñu borom mu dimbali ma ba vraiment dimbali ñëpp aussi ñu nekk ci campagne bi ba kenn bañ cee am loo xam ne lu lay metti lay doon. dégg nañ la yaa ngi fësal boo xam ne jàpp nga ne war na fee mën a jëlee ki fi nekk tey. waaw ndax ñun xam nga nekk ñun ci puusal ma toog dañu nekk ci programme bu nga xam ne dañu ne ah ñun daleen bëgg tabaxal suñu bokk moomeel ndax xaalis bi ñu yoree mooy xaalisu ndoxu courant ndoxu nit ñi seen i courant seen i seen seen i taxe jox leen ñu ñu liggéeyal leen lii la leen bëgg doxalal fii léeg juróomi at tey budget bi maa ngi koy wax sànq mi ngi ci 3 4 milliards jàpp nañ ne war nañ mën a am budget boo xam ne dana yegg ba 15 20 milliards ci at mi ci naka ci ci d'abord ñoŋal li ñu am maanaam fexe ba recettes yi dëgg dëgg dëgg di dugg ci commune bi benn ñaareel bi fexe également ba li nga xam ne mooy ay fuite de recette bañ a am mais aussi fexe ba développer partenariat institut bancaire yi RSE yi nga xam ne ñu ngi fi association dégal entreprise yoo xam ne dinañ jàppale maire bi ak financement innovant tey yàlla fonds vert nga xam ne ci wàllu ci wàllu environnement la yëngatu war nañ ci mën a dem tëbb ñëw defar suñu commune parce que on est quand même aujourd'hui une commune de plein exercice donc am nañu doole kattan mën mën koo xam ne mën nañu permettre ñu jëmale kanam sans compter nag personnalité yi fi dëkk yoo xam ne mën nañ ci jàpp ma ma jiital ci président de la république nga xam ne fi la dëkk te jàpp naa ne dompat sax mën na bokk ci xeex da te dig nañu jàppale incha allah ndax fi la dëkk te loolu tam c'est un avantage comparatif bu ñu am ci te benn commune ci Sénégal nag amu ko amul benn commune Sénégal boo xam ne président de la république fa lay yendoo fa lay yewoo di fa fanaan kon nag comme ñun ñoo ko am dañ ci war a profité pour que population yi mën ci gën a gis seen bopp. ki fi nekk tey yéen ngi joxoon gestion woom ci ñàkk leer ci ñàkk cee askan wi yéen lan ngeen jox comme garantie population bi que bu ngeen ñëwee ñoom tam danañu am wàll ci yëf yi ni muy doxee muy seen yëfi bopp. ñun lépp lañ naan fàng dàng ñun d' abord dañoo bëgg fësal lépp. suñu budget dañ koy def ci internet ku ko ku ko xool gis ko programme bu ñuy réaliser dinañ ne ren jii fas nañoo yéene tabax lii nangam la am na ñu nangam dañ ko tàmbali pour nit ñi gis ko. ñetteel bi mbir mooy dañuy def li naan numéro vert boo xam ne képp ku problème si commune bi dañ ci fas yéene liggéey ak Sonatel mu jàppale ñu comme fii la dëkk comme fii la ñu nekk. ñu mën a wax mairie bi problème yi nga xam ne am na ñu mën a rapidement indi ay indi ay solution ci loolu fas nañu yéene def aussi li ñu naan web TV maanaam ci xarala yu bees yi ñu am ci suñu télé boo xam ne ci wàllu internet bi lay yëngu ñëpp di ko mën a gis mais aussi dinañ am magasin boo xam ne askan wi kër yëpp dinañ ko fa dugal pour que li ñu mën a xam li li ñu doxal donc bu ñu jàppee loolu sans compter nag euh, ñaari weer yu nekk maire bi dafay dem si benn quartier daje ak ñi fa dëkk maire du rek xaar ba dëj am nga xam ne bu ñëwee nit ñi ne bokkul ma la ñëwaat na déedéet maire bi day jege askan wi di dem quartier bu nekk dañuy organiser benn journée la journée du maire nga xam ne day ñëw toog yendoog askan wi chef de quartier yi président conseil yi ASC yi et cetera ñëpp toog ñu dajaloo pencoo waxtaane problème mu gox bi indi ci ay solution mën ko boole ci li nga xam ne mooy budget bi en cours bi bu dee mën na nekk su mënul nekk ñu prévoir ko ci at mi nga xam ne moo toll loolu daal lañu bëgg indi comme coppite bëgguñu rek falu toog xaar juróomi at balaa ngay ñëwaat ci nit ñi mais dañu bëgg fi ñu toll nii ñun xalaatuñu suñu falu bi mais ñu ngi xalaat faluwaat. mbaa du nekk ay diggee kase comme ni gars yi def. non mënul nekk diggee kese parce que ñun Benno Bokk Yaakaar lañu bokk te programme bi lu ci bëri ñu ngi ko roote ci li ñuy naan plan Sénégal émergent bi nga xam ne président tëgg na ko te mu muy plan wu Benno Bokk Yaakaar dañu bëgg indi benn li ñu naan méngale entre. le programme national ak le programme local parce que su fekkente ne dañuy jouer musique yow miy woy ak kiy tëgg sabar ak kiy tëgg tama da ngeen war a am une harmonie ba tax na ñun programme yi dañ ko fas yéene roote foofu mais aussi fexe mu am une cohérence départementale maanaam ci wàllu ndakaaru ak maire bi nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr bi nar a falu ñu mën a àndandoo xool naka la ñuy mutualiser maanaam naka la ñuy boolee suñuy doole pour que programme yu bëri ñu mën ko réaliser. c'est moi Fatou